supermarché Touba Xayra dal di installé wu ci diwaan bu Touba ki taxawal lu ni mel di Abdou Fata Ndiaye di taalibe Serigne Abdou Fata Mbacke Fallilou bi bile supermarché mi ngi nekkee ci diwaan bu Xayra jàkkaarloo kër sëriñ moo dugg sa Dieng ci diggante banque CBAO bi ak Cofina bile. objectif bi nag benn rek la muy maanaam lépp loo xam ne ku dëkk Touba soxla na ko rek mën ko fay fekk. lay am Dakar wala muy am Dubaï wala fu mën am ci àdduna bi rek boo ñëwee ñu fekk ko fi loolu mooy suñu objectif. waaw 24 heures sur 24 euh, danañ ubbi. ku ne Touba fekk ay nit yu ñoo fi nekk ay xale yu yar ñu mën a wax ak ay nit ñoo xamee ne ñu am teggin tamit soo ñëwee dinañ la accueil accueil bu normal ba nga xamee li ngay jënd di ko mën a jënd sa tekk ak sa tey. ñi ngi woo waa Touba yëpp nag ak. ñi nek ñepp ci département bi da len wax naal la boutique boutique ñepp la fu waay toll man nga ci gis sa bop bepp produit bu way bëgg rek so ñëwee diñ ci gis sa bop jëlum ñu ko fenen lepp amna am na bi Xayra bile supermarché boo fa démé dang fa fekk bepp produit cosmétique ak alimentation ak produit yi nga xamné da ngeen ko jëggaani ba bitim réew supermarché Touba Khair dal dina len koy yombal samedi ñaar fukki fan ci wéru mai atum 2023 ji ci lañu amal inauguration association bile ci teewaayu kilifa yu takku. waaw li ñu wax waa dëkk bi nekk seen taxawaay mooy Sëñ Abdou Fatah moom euh, qualité rek lay jaay ndax euh, ku ñeme investir la bu nekkoon Chine wala Dubaï sax jaral na ko dem commandé ko andil ko ngir xam dëkk bi taxawaayam ak dayo bi maam kon lañ daan jéggaani lépp war nañ ko mën a fii ci wàllu alimentation ak yu mel na ñoom. waaw produit yi ñu fi gis itam. yu ci bëree bëri boo demee bitim réew moom nga koy fekk produit yi jaay. dana fexé bi balaa date bee jeex mu tàggoog mom bo ñëwee wax dëgg yàlla sa xol day sét voilà parce que bo gissé né lii ni innovation yu bax la parce que ay zones yo xam dañuy ñew di créer ay activités di créer aussi ay emploi di employé ay nit ku ci nekk parce que bo xol dañ ko fekk ay 10 wala 20 yo xamante ñoo ko employé loolu aussi da nekk lo xam contribuer ci économie dëkk bi taxawaay wa dëkk bi moy di ñew di di participer di jënd bañ japp né ab supermarché boo ko séenee rek da ngay defee ne fu seer la foo xam ne eh, eh, nit ñi am doole rek ñoo fa war a dem loolu du du du tax doxalin boo ñëwee fii supermarché bi sax am na lu mu gën a yomb yombale bitig yi ñu ràññee fa lool teewaayug njabootuk ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim bokk na ca Serigne Ahmadou Rafaay Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal waaye it naka noonu Serigne Abdoul Fatah Mbacke Falilou mi ñu duppee Abdou Fatah Ndiaye mi te taxawal bi la moom Serigne Abdoul Fatah Mbacke Falilou nekk sëriñam di léppam loolu tax mu daal di fay teew daal di jot visite bërëb bi am ci mbégte ak kontantement lool waaye daal

Touba da ngeen leen fa fekk ñu teeru leen tatagal leen sàmmonteeg yéen ci seeni bëgg-bëgg wàllum sécurité am na fa ba doy sëkk supermarché Touba Xayra danañu ubbi 24 heures sur 24 waxtu woo demee da ngeen leen fa fekk supermarché Touba Xayra di tàllal loxo askanu Touba ak Mbàkke ak li ko wër ci lépp loo xam ne yittewoo ngeen ko. ak la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision point com kumpa tàggoo ànd ak ñun ci Senevision nuyuwaat nañu leen ki leen baaxoo di nuyu nag seen mbokk Arona Cissé moom sëñ Fallou Cissé satu maam ñu baaxoo di ànd ak kii ngeen jàkkaar lool alxaaji sëriñ Malick Guèye mbokk yi nag ci kàddu gi seen mbokk Arona Cissé ci caméra bi mbay Seck célibataire bu mag bi gis ngeen li ma yor ñi ngi dëgmal tabaski tabaski nag suñ ko dëgmalee xel yu bari dina dem ci jëmm jii di alaaji Malick Gueye lii ngeen di gis moo tudd li ñu umpale ci xarum tabaski am kumpa gi ñu am ci xarum tabaski téere bii da koy leeral téere bii nag yaakaar naa déggoon ngeen ko fi muy li ci xarum tabaski alaaji Malick Gueye bindoon ko boobaag legi tolon na ci fukki at mu jeexon nak ñu bari di ko laaj serigne bi nak ci yitem ak farlom ak bëgg a askan wi taxna mu defaat yitte ngir delloosiwaat téré bi ba nit ñi man ko jotaat waye anam gu ñëk gi nak bam ko liggéeyee won bu ñëk ci tubaab rek lañ ko defoon waye ren nak ci ñew gim ko indiwaat indi gim ko indiwaat da ko def ci arab ak li nga xamne ne minum alquran ci ñi nga xamne dañoo arab danañ mën a liir téere bii ñi nga xam ne ñoo jàng français dañ ko mën a liir mu liggéey ko nag ci fukki xët ak juróom-benn am 16 pages moo nekk ci téere bi lépp nag tënk njariñ yi nekk ci xarum tabaski moo xam côté mystique ci côté gàllaaj moo xam côté thérapie muy côté faj ci ñi nga xam ne faju ci ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro téere bi mu ngi nii mbay zumal ma ko yéen a koy gis borom kos bi ngeen di gis mi ngi nii de wala dañ koo jaawale sëñ Malick de borom kos bi gis ngeen mi ngi nii lii am lu muy signifié waaw mi ngi noonu kon alaaji Malick Gueye noonu lii logom lii moy li nga xam ne mooy xar bi diggante béjjën bi li ko dalee ci béjjën bi ba ci li nga xam ne mooy geen bi ak tànk yi bi bàyyiwul dara ñu bari na xarum tabaski jàpp nañ ne li yu ci tënku ci téere bi koo xam ne bëgg na ko yooyu yëpp daañ ci ñëw ak lenn ci ay point ci biir téere bi sëriñ bi dana ko souligner ñëwaatal nañu tuuti rek ci li wundu tabaski ak secret yi ci nekk sëriñ bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Arona maa ngi lay nuyu. fay sëñ ma dégg naa nee nga gars yi dañ lay piraat. waaw yi moom dañ may piraat. gars yi dañ lay piraat yow fii ci téere bi <laughs> ak yeneen ak yeneen waaye man tamit daa gars yi dañ may piraat de may def nii gars yi dañ may waaw xam nga to ni nit ku xew da xew nak kon nak waaw nga nangul piraat gi dañu ñu naam no temps nangu nañ sa waji <laughs> ah déedéet la ñu boole loolu loolu romb na loolu li ñu boole du mbirum machine du mbirum caméra lu xóot la fu ma demit yow laa fa nekkal rek nga fa nekkal loolu il faut nit ñi xam mbokk yi Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen balu ak di leen bal ak waaye di nuyu waa bitim réew di ñaan réew mii sunu borom def fi jàmm yàlla na fi sunu borom def jàmm yàlla na yàlla indi ak dal indi fi xéewal gu bare bare bare bare bare di leen wax ne nag boo seetloo lii ñu téye lu ñu yàgg bind la ban ko bindee nag ak léegi yaakaar naa ne euh, mi ngi dugg ci fukki at ak yaar ba ñett ban ko bindee ba léegi mosuñu ko tullantiwaat mu yeeslaat ko waaye nag ren incha allah du ñoo bëgg maanaam euh, yeeslaat ko te yeeslaat nañ ko ba noppi sax fi doon yi am nañ ci lu am solo nga xam ne ku ko ittiwoo rek da nga ko mën a am ci bu jaaree ci yow wala bu jaaree ci man ak point de vente yi ñu ko mën a amee du ñàkk yow di nga ko leeral. boobaa mën nañoo woote rek ci 77. 568 80 80 danañ affiché ko danañ ko affiché ci écran bi mi ngi noonu ngeen di jàkkaarloon numéro de téléphone bi 77 568 80 80. ok ci njëg gu nag yomb na lool macha allah. ngoog su ko defee nag téere bi xañ na am na ñu muy bees yu ñoom waaye beesut ndax lu yàgg la waaye. tamit lu yàgg ci Sénégal la ndax mag ñi ñoo ko daan jëfandikoo téere bi boo xoolee kër mag ñu baree bare bari kenn ku ci nekk am nga ci page boo xamante bi xaman nga ko yàlla dogal ñu def yitte ba dajale loolu ba mu nekk benn téere mu nekk fi mu seize pages léegi nag euh, tabaski moom buñ arrière tuuti rek di ngeen xam ne xar du xar kese ndax bari waa ne nit ka buñ koy xas sax da ngay dégg ñu ne waaye yow toppal fa am xar nga rek ma ngay wax lu mu xamut. ak bari njëriñ. ci njëriñam googu nag Arona ci la ñuy dikkee tuuti ci histoire ru xar ak pourquoi tabaski ndax sunu maam Ibrahima alayhi salaam ab yonent la woon di yonent bu yéeme moom la sunu borom. Euh, taxan. tabaski ni bëgg noos ni rek dugaluñu ci ni euh, tabaski. man nañoo ci bëgg noos ak bëgg lek lekk ak yoy rek tañu rek. ah waaw yow yow de xam nga da da ngaa mën a rek waye romb nga fofu xam na classu classe ge ci ginaaw nga bëgg sànni xeer te ñu bari bari bari euh olof sax ngay faral di wax ni xalé bo ne boko ko boko diggé ko mu jàpp ne bi tabaski xam nu ko doon laqaté non waye tabaski euh, sunu mama Ibrahima alayhi salam sunu boroom daf koo mayeen yonente bu may la moom Ibrahima alayhi salaam woowu nag di tur bu doy waar yàlla tëbaski ci moom la ko jaarale ndax sunu maam Ibrahima dafa yéex a ne am li nga xam ne moom la wax doom amoon soxna su tudd ki nga xam ne mooy saarata ñu sëy lu yàgg bay dugg aas boo xamante bi daanaka téeméer yi day mat wala mu xaw a des tuuti. naata moomu nag gis ne amal na ab jàng na ko comme ñu ngi fëkk mag te jàpp naa yii di haajara yàlla dogal mu yëkkati ko jox ko ci jox ko yëkkati soxna soo di haajara jox ko sunu maam Ibrahima alayhi salaam haajara moomu nag. ab diir lu yàggut mu daal di ëmb am doom ñu tuddee ko Ismaïl jamono yi di dox ndax yàlla ku man am na tàkkoon la dafa ku mën a tege nattu la te am patience ndax yàlla maanaam saa boo yàkkaat yàkkamtee bokku ci programme am moo tax des fois nit dana dem ba ñànki yàlla na tekk rek waaye sunu borom. ab daa mën a seetaan waaye du seetaankat mën a seetaan la waaye du seetaankat sunu maam Ibrahima alayhi salaam bi mu tëddee gént sunu boroom na ko rendil sa doom jii di Ismaïl nga sante ko te booba la mel ni mu war a mel juddu waaw di taawam ne euh, nekk na fi lu yàgg mënul am doom ba yàlla dogal mu boole ko keneen mu am ca doom am déet noonu la demee kay ah, mo moo jël kum yoron jox ko ko ci misal bindal waaw mo parce que mo am ben dom bobu kot dom bi ñu mel melokaan bu ko ba ko gënal melokaan ba gën suñu borom nako ray ko santé ma waaw suñu borom nako rend ko oh. santé ma ko loolu nag aaroon bu doon ci jamono ji justice am liggéey ngay mbay sék ko waxoon tojal sa caméra bi <laughs> do ci jamono ji justice dina am hein waaw koy natt. waaw sunu borom nattu ko. waaw. nga gis ab yonent boo demee ci tasawudu sixaar Serigne Touba dafay wax ne ab yonent du du nëbbu dëgg doonte dañ koy rey kon yonent gis ni mu wutee ak doomu aadama yi du fen day am ab yonent yu yu yàlla yi def ci moom yu mu deful ci nit simple. du jubadi ndax moo war wane njub. jeex na exemplaire bi mu xëyee toog. dom ji tok ñu wara ndego mu xel mi dem ci genti ga mon ko yow sama dom? sama borom dafa wax na naa la rendi daal koy question ba pare daal koy laaj lu ci xalat lolu bay bu nek wona bay wax joju do am sa dom rek di force ci lu neex. mi ngi xool natt ji momit sun borom nat nako momit muy nat dom ay ismaïl tontu ko nako yow sama bay budé ndigal li yalla mo la wax taxaw na pour jëfe ko daal nangu mu ye laaj hajara waqo programme bi hajara nako umu ji xalat xalaat lu jëfe ko foofee seytaane ñëw fa dikkel leen ci ñom ñet ñep ku ci nekk mu am trace bu mu la sanni bo xamanteni bi ku boo da nga d'accord waaw bëgg leen a fengale ndax seytaan daa ñëw ci Ibrahima na ko yow gént rek dina tax nga na rey sa doom ji ak doom ji bi nga ko amee yàggut ak doom ji ni mel nangam nangam nangam kooku sëñ bi waaw waaye yàlla dafay lu mu préparé rek inna ibaadi laysa laka alayhi sultaan mubin am na sama dëgg-dëgg jaam yoo xam ne programme naa leen iblis yow mënoo ci ñoom dara Seydina jeex na nga gis ne li li aaye ba wax in ya ara fil manaami an asbawka fa anzur ma satare tontu la mooy yaa abati if'al ma sa satajiduni insha Allah mina sabirin muy ñaari aay yooyu nan ko denc ndax ñaari aay yooyu lu garaaw la sax ci ñi nga xamante ay lasaraar kalam dinañ ci sa a ñëw waaw ñaari aay yooyu lu garaaw la ci ku dëgër bopp waaw moo tax kon dëkk bi saa bu ci baatin rocc koo rek pëccëxoo bari baatin dara bu ko defee ñu continuer ñu continuer waat prise bi dañ koo débranché de dañ koo branché waat bu ko defee buñ continuer ci Ibrahima Arona jël na intention <laughs> te ñu tontul ci loolu dimbale ma rek dimbale ma rek dimbale ma rek dimbale ma rek <laughs> kon <laughs> bi Ibrahim ali salaatu wasalaam jël na intention puruyubu pour yobbu Ismaïla ci allah ba pour war ko rendi ismaila nak ñeme na dégg lool te yakamti nako ndax ma ngay wax bay ba bo ma naree rendi ma lay xool nga may xol bo ma naree rendi nga may xol ma lay xool ma rendi xalaat bi moy jëlal sama musoru yaay yi tak say gët depp ma su ko defee ma rendi ci la seydina Ibrahim alayhi salam daal di jëlee li nga xam di mooy paaka ba essin ko ci xeer daas ko ba mu ñaw bi mu ko dóoree ci xeer bi mu def ñaari gàll kon xam na ne bu jëlee paaka bi teg ko ci putuk ismaïl la da koy rendi waaw kon gis nga intention ma ngay dem yàlla lépp nag yàlla ngi na tekk rek intervenir defu dara mu ngi xool rek ndax yàlla sunu borom du nekk ci diggante def ak dindi yàlla moom da ngay def wala nga bàyyi intervenir am dafa yéex Ismaïla bi mu dëppee bi mu bi ba Ibrahima bi mu jëlee paaka bi nag di waaja rendi nag rendi na sax waaye sunu borom moo moo moom ñaw ka moom moo téye ñaw ka li noonu mu ko defalee Ismaïla noonu la ko defalee Ibrahima noonu la ko defalee Seexul Xadim ci géej gi kon lu ci nekk rek bu sawara yàlla moom sawara bu dee paaka yàlla moom bu dee géej yàllaa yor lay lay lore kon wéeru ci yàlla rek am solo leneen loo wéeru ci lu yàlla bis dina ñëw yàgg loolee da ngeen ànd daanu kon yàlla rek fi taxaw. wal aaqibatu mu muttaqin baax na kon li ñu ci wax ji mooy keroog bi nga xamante ne bii rendi na daggut sunu borom téye ñaw ko la ci la sunu boroom wax Seydina Jibril alayhi salaam kay bo yexé banu rendi kidi di Ismaïl yow tan ma dégrater la kon Seydina Jibril mom tam ci programme la bok ndax it limu limu limu li nek ak mom deñ bëggut limu yor mu ñak ko. mom moom bu defaton manam bu yexon balé am rek ñu rajé ko mom mu mu ko rajé bu rajee mu ñu génn ko ci kurel bi té lolou day metti mom tamit mu def mu def euh, yitém la fi lako yalla denk mu jëfandikoo ko këf xar mi ak Seydina Jibril ni mu toll ñu ne xar Seydina Jibril moo ko bokk ci laaf yi kon Seydina Jibril moo bokk xar mi ci ay laafam yu tedd yooyu ci xefe xippi mu ñëw rocci ki nga xamante ni mooy Ismaayla ron xar mi ci xefe xippi nga xam ne Ibrahima bi muy rend di siggi ren xamul ne rendi wu doom ji bi mu siggee la xam ne ndeke am xar la rendi léegi nag mbokk yi nga xam ne dañoo yor xel di xalaat xar kii di yonent di Ismaïla ñu waral koo rendi ngir tere la ko suñu borom jël xar mi jox ko Sina Jibril mu essencé ko ndax xar moomu yàpp wi rek mooy njariñ li wala déet mag ñi nag yàlla da leen may na hikma ma korite woo tabaski woo tam xaritoo at mu njëkk bee lu ci nekk am na lu leen ci may mooy hikma lu ci nekk dañu daan indi xam-xamu science ñu xam ne xar mi comme dafa sensé ruux te ruu googu doomu aadama la waaye ban doomu aadama di ak bi yonent xar mi kon léppam lu barkeel la kay nag Arouna daal di mën a jariñu ci loolu waaw téere boobu nag kon ci lañuy dugg ndax yaakaar naa ne leeral nga ñu sababu tabaski waaye ci sa biir yi wax leeral nga ñu importance maanaam njariñ li nga xam ne xar am na ko ba tax nga yow it nga toog jël sa yitte njariñ loolu nga tënk ko ci téere bi téere bi nag defar nañ ci lim bu takk ko ci jamono ji léegi sëñ bi ñu dugg tuut ci biir téere bi le temps que euh, ñuy kii yaa ngi am na fooy waxee ci page numéro 8 numéro numéro 8 bi yaa ngi wax ci wextan wi lu baax la. waaw passe numéro 8 foofee dañ fa wax ne xale bi nga xam ne dafa judd nga gis ne awul yoon wax ndax xale bu xale bu awee yoon wax baaye bi war na koo xam wala yaay ji bu ko awut war nga koo xam foofee boo gisee mu nekk ci diggante ñàkk koo man waxtaan wi ba bisub tebeski bi buñ rendé xar mi nga génné waxtaan wi ca res wa ko ci kasu ñetti gut ñetti gut def ci ndox bam xaw fess mu nan ca moy ñetti tok waaw ñetti tok mu nan ca bu ca nané ci katnu yalla xalé bi day daldi wax lolé nak bar nañu ko essayer ngir gën ci xotal da ngay da ngay jëne téré bi waaw waaw compliqué ay woo sëñ maalik noo ko waxee mi ngi ci téere bi boo déggee tubaab mi ngi ci téere bi boo déggee arab mi ngi ci téere bi kon yooyu yaakaar naa jëlul kii l'essentiel carré wooteel ci 77 568 80 80 feneen foo ko mën a lijjantee nag fu dul ci numéro sëñ Malick Guèye direct baa numéro bii ma la jox man aaroon nga jot ma keneen ko la jaay téere bi sëñ Malick mën nañ ne da ko piraat bi wala demeewul noonu bari ci dëkk bi de naa ne protéger nañ ko de def leen ci attention waaw fi ñu ko war a yóbbu yëpp sëñ bi yóbbu na ko fa protéger na ko waaw loolu ku nañ leen ne sa nit yi yéen dafa yomb sëñ bi ah, nit jël xam-xamam def ci ay at sonn ci fenn fu ne sëñ bi mu dugg fa sonn ci bind ci téere bii yow nga toog fi nga toog jëlaat téere bi jën say machine ah ñu copier lépp ah xaw cee am loo ci changé waat rek naan njariñal xarum tabaski waaw moom de xam naa ne xam-xam de mag ngi ndessan njambur gi len yalla mayen buñ ci imam malik sax dañuy wax ne tukhale len ci imam malik mu wax ne tukhale len ci ibnu abbas mu wax nangam waye legi nak jamono da ngay gis ku tukhale say wax dëgg dëggal boppam waaw lolé nak day tayelo ki geustu ki geustu dang koy jox courage na ci téréb malik géey mu wax nangam lolé dina tax eladji Hadj Malick Guèye dina gëna a defaat ci gëssu kon lolou nga wax lu wër la su ko defee Arona. boligi boligi boligi bari da nañ gis bu ndende xar boligi dañ ko daan jël roof ko ci bant mu nekk ci siñum sakkan bu dé sàkkan la bu dé tabax la bu dé lu mën doon lolé nit ñu bari gis nañ lolou wayé mag ngi daawuñu léral lu ci bari dañ ko daan bayyi non lolé lu ko tax a nit jamono danoo nekk ci jamono joo xam ne enzyme dafa yomb xeetu baat yu metteeg enzyme ak xeet yooyu bëli xar bu njëkkan da nga daan gis ñu roof ci sagar takk ko ci baat léegi na civilisation moo tax léegi loolu mënatul nekk waaye léegi la ko la la sensé parce que xam-xam day dox la sensé loolu mooy danga koy jël jël satala def ci ndox nga jaaral la ndox mi ci bën-bënu bëli gi mu wacc ci bol bi nga nan ko day fajj enzyme lu ko ci gëna gaaw gis ma ko ku ci bëgg lu gëna leer mi ngi ci biir téré bi mi ngi nekk page numéro 14 fofu la tollu def ci sagar takk waaye du ñëpp ñeme xam nga yooyu <laughs> jëlul sagar tak ak buli xam nga ha <laughs> ah? <laughs> ah waaw ah? jamono day dox rek jamono day dox waaw bu njëkk bu njëkk noonu lañ ko daan def de da ngay gis ab jànq boo xam ne day amee asile lu bëri ñu takkal ko buli gi takk jël sagari takk waaye léegi ko def daañ la daw de moom waaye noonu kon leer na amna na fooy waxee ci passe treize bi xol bi ok xol bi day faj xol waaw bu bon wala koo am day nga am day faj xol bi nga xamante bi eh, borom da cee amatul yaakaar ndax jamono feebaru xool dafa bari waaye bii dañ koy booleeg daakaanday we rek boo xoolee sax explication bi nekk na ci waaye moom lu ci doy waar la boobaa tamit xool bi danga koy lakk bu mu ñuul nga dëbb ko ba mu mokk composant bi nag mi ci téere bi. ba nga xam composant bi da ngay jënd téere bi nga leer ko. <laughs> waaw. gis nga Arona. bu njëkkat mag ñi seen garab dañ daan dem ba day jeex ñu la bàyyi ba diwén xam nga lu ñu ci bàyyi ba diwén bàyyil ban ba Tabaski jotaat ci lañ ko daan jële ñëw na ba ci sax li nga xamante ni mooy deretu Tabaski mu ngi nekk euh, page numéro ba tey ci page numéro 14 bi la nekk waaw deret ji deret ji nduxum mii gaa yi ragal ci mbay deretu Tabaski moo ci gaaw nduxum tool boo ko def nduxum dafa nekk waaw loolu nag nekku ci téere bonus la rek dama koy leeral nduxum nduxum mii nga xam ne moo gën a bon ci tool dara tabaski tool boo ko tool bu mu nekk rek nduxum dafa am kon gis nga barke gi yàlla def ci euh, dara tabaski nga gis ne mag ñi dañ daan def ay ngisa ba ci sébrit bi sébrit bu mag ñi dañ daan jël li nga xam ne moom mooy xasum xay bisu tabaski bi dañuy jaxase xasu xay mi ak sebrit bi weer ba moo ñu dëbb ba mokk ñu def seen ngisa ngisa nag mooy zaaru saako yooyu ci ñu déggul olof gis nga catoo raboo saytaane woo liggéey woo um cuuraay rek xëpp ci taal bi mu suuru jeex na mu doxi soxlaam ay yëfam waa sotti loolu ñi ko xam. loolu ci biir téere bi ñi ko xam bari na ñi ko jëfandikoo gis ko bari na. day xam-xam bu ñuy yees laat rek. xuur waaw. muy waay yàlla yi. Ah, noonu la tudd nag sëñ maali noonu lañ ko bindee ci téere bi de mi ngi nii sëñ Malick ko ko bind moo tax ma liir ko mi ngi nii <laughs> loolu. yooyu aaroon na. boo <laughs> sëñ ma bëgg a def ko nangu. loolu ma dara. ah déet. Ah, sëñ bi munoo bind li. xool leen mbay sumal ma lii. ah sëñ bi ko bind ni mi ngi nii. ba pare sax ñu wëlbatiku ma bëgg ma bëgg ma bëgg maa changé su ko ñu ne non journaliste bi amul teggin ah. <laughs> yow xam nga gars yi xam nañ la. <laughs> sekk di mi ngi retaan rek waaye gis nga waay yàlla jooju. Eh, am na année boo xam ne waa ji dama ko ree ba ndax kooku daa amul soxna jël ko yëf yët eh, maanaam mel sondeel mu mana ma lucu sekali, lu ci karena nah, ma ne ko xanaa autisme waaw loolu moom déedéet wóor waaye boo defit na la wóor ne xam te xel mi yoomut te parce que tamit bàyyi la bañ ca tànn bokk na ci xar moo xamante ne bii muumawul taxul gumbawul xar mu ko gen ba la la des moo war a ëpp waaye la dagg bu ëppee matut nopp yi bu këttee manqué na tànk yi bu may te yaakaaru ci ak wér fekk tabaski manqué na mbuuraan jeex na warta xasaw kon dafa war a bokk ci boo koy consulter war ngaa ubbi gémmiñ gi léegi nag jeex na léegi yow question bi may lay laaj yaa ma doon laaj boobu ba léegi kiy jënd xar te bëgg a xam xar mi muuma ne wala muumul ban point ngay laal <laughs> ab laaj la. xar mu muuma xar mu muuma na xam nga borom moom. waaye ah, waay yàlla yi. ngay laal bës ko. moom nga naaj. <laughs> loolu lu garaaw. nooy xamee <laughs> nooy xamee ba xam yoomut tàppeesu ko. da teg sa loxo ci kii bi ci suufu kii bi di ko raay. waaw. ah ci suufu kii bi waaw suufu waa yàlla yi ah, ngay teg rek raay nii rek waaw góor a waay nooy xamee tëxut maa ngi laaj moom ndax mi ngi dégg jàngale bi pour lan la ñi war a jënd xar ndax tamit lii lii may wax diine la lañ doon njëkk a wax aada la ñu bañ a jaawale diine ji ak aada ji ndax dana la booy dem jënd ci xarum tabaski na nga bàyyi xel bu muumaa bu texé bu lafañee bu mbuuraanee bu caaree bu bu matut bu bu bu bu góorewul yoy yëpp lu ci nek lolou yu loolu diine la. diine la diine la lii li né ci téré téré bi nak mom na lèr ada la <laughs> na lèr dé motax tax ma indi ñaari programme nga xam dafa tex wala texut wala nga bëgg xam dafa gumba wala gumbawut so ñëwee da nga koy mu da ngay mur bëdi da ngay ci da ngay jël morceau mur bëdi so muré bëdi manam da nga koy doxé ginaaw fitasu ko wala nga aj ajal ko ndax xam nga ay mëna gis la ngay def mu gis ko daw ci la ngay def waye bo muré gët yi waaw buri bo def mëna tek té war ko dawal moy tëx lolu ab test la ci ñi nga xamanteni dañuy jënd xar té bëgg am xar mu complété bu dé bëri dafa gumba sa barom nga koy jubalé bam dess 3 cm waaw normalement bu doon xolé bu desee 3 cm joxogn bi waaw mën lu koy loqi comme nit rek ni nga xamé nit waaw dé man gumba mo <laughs> amuñu ne xorom la ci quoi gars yi yii nit ñi ko war xam kon ñaar yooyu leer na ci yéen ñetteel bi mooy turfe goxo mooy bu nee naaj waaye yàlla yi loolu moom bëy xara ci yam boo ne ko naaj rek li mu am lay génne li am lay génne da ngay dégg kàddoom wala nga dégg maanaam bërti bërteem ngir ñàkk mën a wax nga xam ne muunu ma def sanq nii am na ñoo xam ne mag ñi daal wax ne diw de diw diw kenn du ko joxoñ de diw ah, waaw dëgg la am na réew am na dëkk boo xam ne waaw déet man <laughs> <laughs> <laughs> Eh, yow yow yow yow yow yow. il faut muy leer ma nga la yar sëñ Fallou yàlla na ko yàlla doole yërmande eh, ku mu yar ra am na dëkk boo xamante bi bu ñuy xuloo nii la def waaw. loolu nga indi lu am solo la. bàyyi leen ku ngeen di waxat rek di ko joxoñ bàyyi leen loolu. waaw su ko defee xar suñ bàyyee xel maanaam li nga xamante bi maanaam mooy res bi li ñuy wax nii rek dañ leen koy laabire ngeen mën cee jàpp. waaye lépp li ñuy wax rek mi ci téere. nañ diine ji nag léegi. waaw ngi ci aada ji. ñu ñëwaat ci aada ji balaa ñaan ñu naan <laughs> ah, astafurla. <laughs> res bi boo ci bindee baatu mudd xaamataan yi gis nga ko. rasu ngay jël bind ci baatu muddu hamadaan yi bépp big bu yab rek baxna kon question yi nga bàyyi xel yow mi na tek wara am lo laaj moy ndax bigu fotur wala bigu big bépp big li ñuy bañ dal nga bind ko loxo waaye bu yab bi nga xam bo bindé bindee baat bi gis ko lakal ba mu ñor ku ca lek yalla mëno ko musal ci ay kasso yalla mëno ko musal ci ay kasso na leer ku ci lek rek yalla mëno la ci ay kasso ci at moom moy baatu mudu xamatan rek lay couvrir waaw motax tax dañ ko lan yeesal ma ngi lan denc resu tabaski mi tamit nit ku nek ci yoon ta ragal aw yoon dañ nan ci chopet ndax dañ ko lan wal nga xamne fonk buñ ko fonkon ndax nit ak jafé jafé ñoo dëkk nit ak xat-xat ñoo dëkk waaye lu ci nek rek suñu borom mayena lu koy lugu lu koy lugu ndax lu amul anti amul Mangi ngi kuda ko dan jël lak ko bam bam bam ñor ñu ñu dëbb ko wër bam wow ñu denc ko du yaq ko kep ko xamante ko bëgg waaw kuy tukki wala ku ragal walu yoon wala ku nekk ci njàqare ñu la lekkal dafa nangam wa señ bi nak ni xamna ne man nga yam fofu téere bi moom yaakaar naa li ci war a leer lépp leer na fukki paas la ak juróom-benn yoo xam ne lépp lu aju ci xaru tabaski ci wàllu aada ci nuñ ko war a jëfandikoo ci côté thérapie côté mystique lépp muñ ci téere bi cherul nag ku amak ku ñàkk ku néew doole ku am doole ku bari lekk ku bari lewut ñëpp mën nañu am ci téere bi ndax li ñu li ñu koy li ko sëriñ bi di weccee ko nekkul lu cher bu leen ci kenn nax nag bu dee téere bii ngeen bëgg. ñaari bërëb rek ngeen ko mëna amé amee mi Serigne malik gey mi direct ba ci man mi kon bayi leen ci xel légui nak ku ci bëgg joko ngir am ci 77 568 80 80 77 568 80 80 tabaskee ngi jub si nag balaa tabaski war nga koo mën a am liir ko xam li ci nekk ba xarum tabaski bi bu ñëwee boo jëfandikoo ni la ko diine santaane ba noppi la ca la ca des nag nga mën koo jëfandikoo ci wàllu aada ci téere bi ngir ci walu ay jangoro ak ci walu ay galaj ak ay njariñ yo xamne serigne bi teunk nako ci kon serigne bi ñi ngi lay jox kàddu gi nga daldi tej waaw kàddu gi de moy ñu sante yalla te ñaanat yalla rek mu doli ñu euh, defal jamm ci sun rew mi ndax yeungu yeungu yi bari na yàlla nak yalla def jamm euh téré bi comme niko arono Arouna rek téré la bo xam ndimbal njabot la ci kërëm ndax am na sew-sew yoo xamante ni bii mi ngi ci te nit ki dina ko mën a defal boppam yaakaar naa ne réew mi lu ci ëpp nit ñi alxuraan lañ jàng ak français téere bi noonu lañ ko bindee mbindum alxuraan mu olof ak mbindum nasaraan kon yaakaar na boo ko jëlee boo liiree danga xam composant yi amul leneen lépp loo ci gis rek noonu liñ ko defee rek noonu la amul laajte kon loolu nga bàyyi ci ndax day jafe bisu tabaski ku nekk woo la téléphone loolu mënuma ko du ma ko def kon boo jëndee téere bi mu ngi foofu lépp a ngi foofu kon boo liir nga wut ko la liiral liiral waaw su ko defee nag kon ñu ngi jégalu kàddu yi bu dee am na leen lu ci dëng yal na may ñu fekkee côté tal ko waaye mën a nekk fu waaye mën a nekk ci àdduna bi it mën nga cee jot boo jokkoo rek daañ fexe ba nga jot ok noonu la su ko defee nag daaw am na ñu moson loon lool ci fa affaire dënd waaye dënd ñu bàyyi xel ne dënd moom du ñëpp ko man dënd mooy xar mi fees xar mi jël der bi lal ko ci suuf dënd maay ay peegoo koy def xam naa loolu dañ koy anticiper ba beneen yoon ñu gën koo leer waaye daal maanaam dënd waaw jëmmee dënd xar der bi waa ni si di dëndee waaw nes ci dendee kon ku ko bëgg mu ngi fii yëpp ngi fii dënk nga ko waaw kon ñu ngi rek waaw ko bëgg mi foofu day wut téere bi yomb na <laughs> njëg gi lu yomb la waaw kon baax na mbokk yi kon ñu ngi jéglu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ak la crédibilité notre credo senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo